Seydou Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Ndeye Comba Moreau. voilà Seydou Badji nga nekk coordonnateur bu anniversaire bu assassinat Oumar Lamine Badji porte-parole famille bi 30 décembre 2006 ci lañ assassiné woon Oumar Lamine Badji nekkoon euh, président bu conseil régional bu Ziguinchor. Euh, est-ce mhm. que mën nga ñëwaat ak ñun ci dossier bi parce que at mu jot yéen ngi màggal anniversaire u décès bi di 30 décembre. Euh, Ndeye Comba Moreau maa ngi lay jaajëfal di leen wax ne anniversaire El Hadj Omar Lamine Badji ala kulli ali ñun dinañ ko dinañ ko def at bu nekk lan la parce que Omar Lamine Badji li mu nekkee ci euh, ci ci réew mi bi mu nekkee ci ñu dëkk bi vraiment dafa nekk nit koo xam ne ku yiw nit koo xam ne dimbale na doomu aadama ce qui fait que ñun mënuñu ko fàtte léegi nag li ne ci dossier bi dafa dafa ëmb lu bari loolu laa doon wax ci français xëy na peut-être mënuma ko résumer tout suite ci olof mm-hmm. mais li ma wax mooy état du Sénégal moom moo xam. xam naa bu baax a baax a baax. du résumé tout de suite ci mhm. mais li ma wax mooy état du Sénégal moom moo xam xam naa bu baax a baax a baax dossier bi lu tax ma wax ko parce que bi justice bi euh, defee sent jugement le 26 janvier 2015 bi ñu paree ñun ñu yaakaar ne ñii dañu leen condamné ñoom ñuy libéré par contumace ñi nga xam ne dañu leen jugé par contumace ñuy fexe di leen bàyyi noonu ñuy taxawaalu di leen fu leen neex loolu justice mënul doxee noonu. Mhm. àdduna justice fu mu nekk mëntul doxe noonu nit koo xam ne def na lu garaaw mënu mënoo ko bàyyi muy taxawaalu te loolu ñu ngi koy ñu ngi koy gis dañuy dem sax di dem di leen génne ci prison ñi nga xam ne ñoom ñoo war a tëdd vingt ans defuñu même pas euh, fukk ak juróom at déjà ñu génne leen ci kaso pourquoi ñu génne leen ci kaso parce que ñoom ñoo gën a xam que dossier bi ñoom ñoo ko créer ñoom ñoo assassiné El Hadj Oumar Lamine ñoom ñoo ko rey donc ñun pare nañu ci année yi ñëw. du ñu bàyyi noonu affaire bi muy sedd noonu donc waxoon naa tamit ci ñun dañu nekkoon comité di xeex mbir mi euh, juróom fukki at ama euh, durant quinze ans durant ñuy xeex booba famille bi déggu leen fenn muy wax tey jii ni ma leen wax nii famille bi ak comité bi ñu ngi lënkoo ñu ngi defaroo benn teg benn mbir boo xam ne suba incha allah weer yi ñëw ñëpp dinañ ko dégg donc en en plus de ça aussi mënuñu bàyyi noonu affaire bi mu muy mu sëy donc nous nous allons lutter dinañu xeex ba fa xeex yem incha allah dossier bi bu kenn yaakaar ne commanditaire ki fa taxaw ci Bignona jàkkaarloo Omar Lamine di ko menacé dina ko wax ne ren dinañu la rey ba ñu rey ko ñooñu ñëpp dinañu leen topp incha allah. léegi de dossier bi Seydou Badji am na ñu si jàpp ñan lañ si jàppul lan moo waral ba léegi ngeen bëgg justice te pourtant procès amoon na non mais ñu ñu jàpp ba pare ba pare jugé ñu leen ñu jéem a def tappale tappale boobu du mun a jàll tappale baaxul nañu waxante dëgg hmm. mun la jàpp nit nga naan way def na lii léegi nga tëj ko ba pare maintenant yow ngay fexe di ko génnaat parce que da ngay naan non demal tëdd man dinaa fexe. Hmm. suba ginnaaw suba weer yi ñëw dinaa la génne. loolu la parce que dil lañu teg. Hmm. dañu leen sax jox xaalis jox leen leen xaalis ñu lekk nañu ba pare. donc bu ñu lekkee ba pare y' a pas de souci ñun xam nañu lépp mënuñu nax kenn loolu mooy dossier bi seen dossier la ñun daal suñ dossier mooy dinañu leen topp loolu mooy suñ dossier. ñoom seen dossier mooy. Hmm. topp leen defal nii jàllal nii après libéré leen. loolu ñoom am nañ euh, coobare ñoom nañu am nañ force ñun am nañ beneen force bu ñu xam ne incha allah su fekkee ne Sénégal dafa nekk un pays de droit dinañu leen topp bépp topp yem dinañu leen juger et incha allah dinañu leen condamner encore à nouveau incha allah. voilà en tout cas du ñu du ñu rëcc noonu incha allah. mais kan moo doon euh, Omar Lamine Badji. Euh, chaque mhm. année ngeen màggal anniversaire de assassinat Omar Lamine Badji lan mooy particularité bi. bon particularité bi mën naa wax ne que Omar kenn mënu ko fàtte. Mhm. nit koo xam ne taxaw na ci jamono ba mu génn àdduna musul fàtte population. Mhm. musul fàtte xale yu góor yi. musul fàtte jigéen yi. musul fàtte mag yi. lépp loo xam ne mu ngi yëngu ci ci Ndiob mu ngi yëngu ci Bignona mu ngi yëngu ci département bi Omar moyen bu mu mënta am dina ko yóbbu moyen bu muy jël uti gi jëli ci feneen. dina ko ñëw sant jox leen ko pour ñu mën a dérouler seen seen activité pour ñu mën a def dara ambition yi muy am mooy tamit hmm. tabax zone u Casamance tabax aussi zone Fogni amoon na ko donc bis bu mel noonu mënul génn àdduna ci ci anam yu mel nii rey ko ba pare affaire bi di jàll ngeen naan way ku nekk dem tëdd këram loolu ñun defuñu ko gis ngeen ne ça fait maintenant seize ans seize ans du lu da lu lu tuuti année bu nekk ñu ngi koy taxaw jour bu nekk ñu comité bi ñu ngi ci liggéey ñu ngi ciy wax yéen tamit rajo yi ak yeneen da ngeen toog benn benn moment ngeen gëstu wala ngeen ñëw benn ñun pour jox leen ay information par rapport génne Omar Lamine Ba hmm. donc xam nga bu ñu koo xam ne bu ñu génne àdduna ba tey coow mu ngi jib donc important la pour Sindian ou important la pour Bignona ou important là pour la région de Ziguinchor en ce sens que kenn mënu ko fàtte loolu mooy tax chaque année ñu koy ñu koy euh, sargal ñu koy def euh, di ñuy di di wax hommage ak euh, anniversaire am ko ñaanal yàlla fu maanaam daal ko amaloon njëriñu ask askan askanam la moo waral lu ni mel Oumar Lamine Badji oui oui loolu rek la moom laa ga su may ne damay wax simplement lu muy njëriñ ci askan bi du ma pare tey mais résumé carrément mooy Omar Lamine dafa nekk nit koo xam ne ku yiw nit koo xam ne ku gën a utile bi ci lu muy dimbalee kenn mënu ko naatable macha allah. Hmm, mais ñan ñoo ko waroon yéene lu bon lii ba ba ba assassiné ko exactement. ak li mu représenté xam nga xam nga Bignona Bignona dafa caractéristique ci koo xam ne politique am dafa salté. Hmm. mooy lan ñoom dañuy xool benn doomu aadama boo xam ne yàlla may na ko kattan yalla may na ko ci muy liggéeyee léegi dañ ko ne jógee fii. loolu rek la dañu bëgg a xëy dañuy xëy un jour rek ñu ne dafa war a dafa war a jógee léegi mën a fa jógee ci beneen anam ñoom ñu def seen force def seen dil def seen préparation jël ay ay nit yu mu ne leen war a lay maanaam ñooñu ñi nga xam ne ñoom ñooy di réunion di ko wax parfois dinañu la rey ren dañu rey ko ñooñu ñooy ay commanditaire donc commanditaires yi tey jii ni ma lay wax ñoom ñoo ci au niveau de l' état wala ñi nekkoon ci jamono ma ci au niveau de l' état ñoom ñooy ay commanditaires maanaam responsable PDS bu Bignona ba ci au niveau central ñoom ñoo lijjanti rey Omar Lamine Badji nañu lijjanti waa tamit ñun dinañu lijjanti pour ñu juger leen ñooñu les commanditaires dinañu lijjanti ba ñu juger leen incha allah. kon daal da ngeen a fas yéene dem ba jeex eh, te pourtant am na ñu ñu si jugé woon am ñu ñu bàyyi donc ça pose toujours problème. ay mooy mooy ñi nga xam ne la le vingt six janvier deux mille quinze dañu leen jugé mm-hmm. loolu loolu laay wax ci tubaab nekk c'est un c'est une justice euh, comment comme ni ma ko waxoon ci français mm-hmm. ku mooy euh, un mu ne jugé nit ba pare nga tëj ko mm-hmm. nga bàyyi nga dem après nag ngay ëttuku ñëw di ko libéré ci bi ci ban base ci ban base nga ne ko vingt ans la war a tëdd nga ci tëddul même pas quinze ans nga dem génne ko euh, si kaso bi mu ñëw taxawal du ñu seetaan ñoo loolu duñ ko lànk duñ ko nangul ñoo lànk dinañ topp dinañ topp léegi am na beneen parti boo xam ne boo moo gën a garaaw nit ki nga xam ne jàppoo ko mhm. mais bi ñu leen dénoncé ñoom seen groupe ñu dénoncé leen ñu ne diw bokk na ñu ne anamu gendarmerie mënu ko mënu ko jot moom daw na juge nañ ko moom la ñuy wax jugement par contumace yow yow ki nga xam ne da nga ko jugé par contumace mu dellu ci sa réew sa devoir mooy laaj sa devoir mooy da nga koy dem jàpp andi ko ñu ko am na koo xam ne dafa dellu Gambie ñëw Sénégal toog na fii dégg naa dafa feebar après nag mu génn àdduna musuñu dem ba ñu jëli si ko ba ñu mën a ko déglu déglu carrément dans le fond pour ñu xam ban mooy degré participation ci reyu Omar Lamine Ba bu ko deful nag ñoom la dil bi ñoom la ñoom ñoo dil ci loolu team bi ñoom la kon nañu xam nekk ñun duñu kon doon nañu leen bàyyi incha allah. voilà kon mu ngi noonu Seydou Badji Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci Ndeye Comba Moreau maa ngi remercier Rewmi FM. Mhm. xanaa fàtte laa laaj rek particularité euh, décembre trente décembre bi naka ngeen ko euh, defee ak fan ngeen ko defee euh, anniversaire u assassinat Oumar Lamine bala ñuy ma ne bala ñuy tàggatoo juste euh, ren 30 décembre bi 2022 euh, euh, naka ngeen célébrer assassinat Oumar Lamine Badji waaw alhamdulilah yàlla dimbale na ñu jabaram mi nekk Bambilor mhm. célébré na anniversaire El Hadj Oumar Lamine Badji ñun famille bi ak village yu ak képp ku joge du ñëw na fu nekk mu ñëw na le 30 décembre ñaanal nañ ko dañ ko taxawal jàng ak Quran ñaanal ko véritablement nit ñi fàttaliku kan mooy El Hadji Malick Gakou ci ay discours yu simple véritablement nekk na jour encore boo xam ne dafa mel ni jour dëkki la parce que euh, xol yi jóg nañu xol yi dañ jógaat boo déggee sax ni ma waxee nga xam ne foofu laa ko jëlee sama xol bu jóg ni jàpp sama baat bi ma koy yëkkati da ci kaw. Hmm. su foofu laa ko jëlee ci depuis le trente décembre passé maanaam ajuma ci passé ba tey jii nii loolu moo ñu nekk suñu xol moom moo nekk suñu euh, ité dinañ ko lijjanti comme ni ma leen waxee ci français ak olof dinaa dinañ continuer ci jàmbat mbir Omar Lamine Badji particularité moom hmm. mën nañ ko wax lu bëri la ndax incha allah maanaam euh, fàttaliku jaar-jaar Omar Lamine Badji maanaam teet naka lañu ko mu mënee dëral ci ay ji euh, tubaab bi wax pérennisation ci li mu liggéey maanaam li muy liggéey yëpp dinañ ko tàmbar teg ko doomu aadama yi ñu mën a xam mooy xale yu góor yi ñëw nii ci génération bi fii ba quinze ans vingt ans dinañu xam kan mooy El Hadj Omar Lamine bi ñu bàyyee noonu ba ñu fàtte ko noonu kese te kenn xamul kan mooy El Hadj Omar Lamine loolu mooy suñu liggéey incha allah loolu moo tax ñu jéem di essayer tout le temps di def effort pour mu tenir toujours anniversaire El Hadj Omar Lamine Badji bu ñu ñëwee ñu jéem a waxtaan ñu jéem wax suuf ñi ko xam ñu wax ñi nga xam ne ñi ko gënoon jege ci jamono ba ñu continuer di wax ñun ñi nga xam ne ñi nekk ci dossier bi bu ñu laajee ñu wax leen dossier bi fan lañ toll foofu lu mooy mbir bi euh, wasalaam. Euh, voilà Omar la euh, Seydou Badji plutôt maa ngi lay jaajëfal. merci merci may fàttali yow yaay coordonnateur bu anniversaire bu assassinat Omar Lamine Badji nekk itam porte-parole de la famille Badji.